dossier Ousmane Sonko ak Mame Mbaye bi nga xam ne yóbbu nañ ko ci cour d'appel boobu lépp dossier juge yi nga xam ne ñoom lañ ko teg ci seen loxo jamono ji le dañu ko bëgg a yóbbu ci en mode fast track maanaam dañoo bëgg a gaawal yëf yi la gën ko yembal mu gën a gaaw ñu daal di jël seen dossier jël seen cëggal gi nga xam ne moom la ñuy teg ci boobu lépp dossier diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko gannaaw ba ñu leen attee ci procès en diffamation nga xam ne moom la ñu nekkoon ki nga xam ne mooy ki ko attee gannaaw bu mu defee yëf yi la jël aw ñaari weeri kaso yoo xam ne du ko tëdd

la dal di xamle ne damay interjeter appel ci cour d'appel lay dem fassiyene fa faa wat dossier bi ngir ñu fassiyene fas yéene ko attewaat indiwaat beneenew cëggal guuy mom cour d'appel nak bis bu ñu fëggee seenub cëggal guuy bu fekente ni dañoo dal di jël décision ngir mëna wañi pen bi nga xamne tek nañ ko ci ko Ousmane Sonko Ousmane da fay wéy gëna nek ab candidat ci atum 2024 su fekke nak dañu koo yokkal boobule pen lil ko benen daan bo xamne tek nañ ko ci kawam xana Ousmane dem fi nga xamne modi ci cour suprême ngir mëna dal di génne boobu lépp décision ñu tek ko fi suuf bala ma koo yàqal candidature am ak lu ci mëna xewitam xew cour a baral yëf yi lee maanaam def ko en mode fast track ngir yëf a gaaw nag ndax ñu mën a jël seen wu cëggal guy Sénégal xam fu ñu féete ma dem ca Kayaar diggante ay pêcheurs yi nga xam ne ci semaine bi yëpp dégg nañu seen affrontement maanaam seenu jëmmërloo gi nga xam ne dox na ci seenu diggante ci waax yi nga xam ne ñu ngi koy xëccoo ci seen biir affrontement yooyu la gannaaw ba ñu gisee image yu njëkk ya ñu gis ca ay mool yoo xam ne lakk nañu ca Sénégal ñenn ña moom seen yaram ya yàqu ca yaxeet muy affrontement yu métte métti ñu gis ca ñoo xam ne fanweer ci ay doomi aadama jële woon nañ ci ay gaañu-gaañu ñaar ca ñoom daal di cee kenn gisu leen kenn tegu leen bi affrontement ya amaat na tàmbale waat na te itam jamono jilee ñu nga cey benn benn boo xam ne jot na caa ñàkk ba kanam tax na waa Kayaar ak ñi nga xam ne ñoo fare ca Mboro kenn ku ci nekk yaa ngi yëkkati sa baat di yuuxu wàllu ci ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi di leen xamal ni leen kilifa yi jug leen gën daal di addu jug leen gën daal di taxaw ci li ni mel ndaxte mu ne ñu ngi koy gis mu ngi dañoo ñëw bëgg leen a dàq bëgg leen a tàqale waaye mënuñu ci dara dañoo mujj daal di wàññeeku ji uti ji ay renfort yoo xam ne danañ leen mën a dimbali ci boobu lépp xeex jëmmarloo googule jamono ji le metti na ba àgg ba ci kanamu yàlla tax na ñi nga xam ne ñoo fare ci boobu lépp population ñi ngi sàkk ci nguurug Sénégal ñu jug daal di tiy agir ndaxte seeni doom ñi nga cee bëgg a ñàkk seeni bakkan seeni doom itam ña nga cey jëlee ay gaañu gaañu yëf yi nañ ci daal di wax ba indi ci ab jàmm wis ci ndox mu sedd guy loolee mooy li tax ñu yuuxu ba ba léegi Marème Dial mi ñu fi tàggate deewut moom mi di Marème Dial daal dinay ànd ak sànni gumet méttee métti Maram Dial actrice bi nga xam ne Halima Gadji mooy aw turam Maram Dial daal di nañu koy tàggee ni ñu ko defee yi ni ñu ko defee nit ñu siiw ñi moom Maram Dial jot na ci wàllam gannaaw ba ñu ko tàggee ba noppi Maram Dial ci boppam dafa daal di ne dinaa jël ab plainte jagleel ko cybersécurité gi nga xam ne moo nekk ci Sénégal ngir ñu mën maa toppal kookee nga xam ne mu ngi jëf jëf ji ni mel ci TikTok bi la koy defee muy tur boo xam ne dafa dafa daal di jël benn compte TikTok boo xam ne ma nga ca def Samidia tàggee woon na fi Wally Ballago Seck tàggee woon na fi Kiné Lam Mambamba ñu ne déet na waaye ji Soda Mama Soda Mama itam teg ca Lamine ak ñeneen ak ñeneen xam ne jot na leen a faat te boobu ba léegi TikTok boobale ma ngay wéy di gën des ak lu ñu koy signalé signalé terewul ma nga cent mille abonnés ba itam ay vidéo ko dugalee dana àgg ba sept millions personnes yoo xam ne jot nañu koo visité moom it di Marème Dial nee na sama plainte nag te su bu demee ba tëñu te demee itam ba daal di dévoilé boobu lépp compte tëñu danañ loolee itam dañu koo war a dakkal danañ ci xeex ba daal koy dakkal moom Marème Dial nee na bi ñu ma tàggee ba noppi am na ci kenn koo xam ne sama tante la bi ñu gisee nouvelle bi dafa daal di moom bi mu xamee ba léegi ma nga ca urgence kon nag am na ci loo xam ne jekkul rafetul su fekkee caaxaan la ci jubli itam ñu ngi ci rey ay doomi jàmbur ndax am na ñoo xam ne dañoo sensible am na loo xam ne bu ñu ko déggee rek ca saas dañuy daal di daanu te mën i ñool ñool yoo xam ne na indi jafe-jafe ci seen àdduna ñu daal di koy teg loxo ma dem ci Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné benn ab article boo xam ne gis nañ ko muy circulé jamono ji rek bokk na ko bind waa Seneweb daal di def seenub gëstu di xam ne ne Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné jamono ji lee seenub maanaam ci gàttal Papa Boy Djiné dafa daal di wan ginnaaw kii di Ndeye Gueye li waral mu wan ko ginnaaw mooy benn soxna soo xam ne moom lay labat jamono ji lee donte defagu ko soxnaam itam tax na soxna soosu le tax na mu daal di bàyyi Ndeye Gueye ne ko fi ñu ko ne yàq bu yi tax na ñoom ñaar seenub diggante neexatul waaye ci information yi jote ñoo di ñoo ñi def gëstu bi ne ci la ñu waxe ngeen di àddu mu ngi koy approché waat ndànk par ndànk ginnaaw ba ñu jotee bi lépp information yëkkati nañu suñu téléphone woo Ndeye Mbili gi moom mi di Ndeye li mu jot wax moom moo di ne gars yi la ñu nekk ndax jamono ji ñuy bindee li ni mel jamono ji ñuy tasaare bi lépp information mu ngi ma fekk ma ni faax ci sama wetu borom kër kon nag gars nañu bàyyi li ñuy def te bàyyi leen foofu le xëy na dañoo nekk ci seeni poisson d'avril yooyu nga xam ne ñu ngi ci waaye ak lu muy doon poisson d'avril poisson d'avril wax ji du dëgg ndaxte Ndeye Gueye ci boppam mooy ki ko weddil boppam Barthélémy Dias dina na expliquer boppam teew gi nga xam ne teew na ko ci wetu Macky Sall ci défilé à la nation gi nga xam ne doon nañ ko amal niki démb ci 4 avril gi lee ginnaaw yeewi askan bi ba leen président Macky Sall joxe ab carton d'invitation carton d'invitation gi nga xam ne président joxoon na leen ko ngir ñu mën a teew ci boobu lépp défilé dañu ko daal di xottate xamal ko ne ko duñu mën a teew ci sab défilé ndaxte gëmoo sab invitation bi nga ñu bindal Barthélémy Dias daf ko daal di teg fi suuf en tant que maire bu Ndakaaru Ndiaye fa la fa teewee Barthélemy Dias jotna expliquer néna man am maire Dakarou Ndiaye la ba tax na institution la bu ñu ma damay daal di teew ci lo xamné bu amé damay tek lépp lo xamné politique la tek ko ci souf jéem taxaw ci lo xamné tel askan bi la décision boobu nga xamné jotna ko na koo jël moom Barthélemy Dias ñu bare bari ci ñi fare ci ku gi ñi nga xamné dañ leen di woy ay partisan Ousmane Sonko ak gis-gis bañu ci amé amna ño xamné nangul nañ ko ko nee nañ ko Barthélemy Dias maire bu Dakarou Ndiaye la amna lo xamné warna ci mom te itam force la ci mom ñeneen ñi ci dess na Barthélemy Dias nit ku ñak jom la te bind na fi ba tàyyi Macky Sall a kenn ku ci nekk ak gis-gis ba nga ca amee tentative d'assassinat ci jëmmi Ousmane Sonko Sonko njiital Pastef li loolee li ko waral mooy enquête yi ñu war a def ci ñoom lu ñu ti nga xam ne procureur bi jamono jile ngi koy luñutu ngir xam ana lan moo tax Ousmane Sonko ci boppam ak i gaayam di yuuxu ci kaw naan a jël aw bakkanam lépp dañ koy daal leeral procureur de la République ma nga ca yoon boobule mu ngi ci kaw Ousmane Sonko ak i gaayam fas yéene luñutu ba daal di xam ndax dëgg la am déet Sonko dañ ko doon jéem a faagaagal Ousmane Sonko dañ doon jéem a jël aw bakkanam asma ma ca seen TV mi nga xam ne génnoon na ci beneen interview wax ci ne man dama génn ci diinal chrétien nekk jot na ku cee dégg genre polémique bu ci nekk jot na ko moom mi asma ci la daal génn leeralaat yi ba mu leer naa ma génnee daal di wax ci diinal chrétien dem ci diinal islam taxul ma daal ñaawal diinal chrétien dafay wéy di nekk diine ju baax diine dëgg la jàngal nañu ma mën a ràññet la dëgg akowu fenn ba tax na nag diine jooju le diine ju ma sant la diine ju ma gërëm la waaye suñu borom mi ma may ma daal di xippi samay gët te xool ba daal di daj l'islam jàppe ko muy sama diiney dëgg dëgg te du tey itam weddiwu ma seenub dëgg muy dëgg